ñu ngi fii ci dàllub nga xamee ne bu ñu waxee café ci Touba rek xel yëpp day daal di ci moom ndax taxawaay bu nga xam ne bu na ko ci ñu ñëw fi nag laataa ñu ñi nga xamee ne ñu ko jege di sëñ Mamor Sakho sëñ Mamor tey di ouverture complexe Cheikh Amadou Bamba lan yan am yoo xam ne moom nga ci sànni surtout ci tolluwaayu xam-xam rawat na jëm suñu ndax ak liggéey bi nga xam ne bu rëy bi nga xam ne amal ñu ngi leen nuyu di leen ziare bu baax a baax waaw suñu muntaxaa de moom lii maanaam Serigne Touba rek ko am ndax liggéey la boo xamante ne bii ci moom la ko yàlla jaare ndax xam ngeen ne lii liggéeyal alxuraanul karim la te it liggéeyal lislaam la yàlla jaare ko ci sëñ Mouhamadul Muntaxaa mu nekk koo xam ne it Serigne Touba da ko waajal waajal ko ci côté bu nekk ndax Serigne Touba dafa wax ne la weesu woon lépp yàlla xamal nag ko lan fekk woon ci saa yàlla xamal ko ko li ñëw ëllëg yëpp yàlla xamal ko. kon suñ mun ta ñàkk mel nii ndax suñ muntaxaa Serigne Touba moo ko waajal xam nga sëñ Touba day kenn di koo xamante ne bii lii moom rek moo ko mën a am ndax sëñ Touba bu soxlaa képp ko soxla da ngay ñàkk ndax ñii ñi nga xam ne dañoo bàyyi seen itte bàyyi seen lépp ñëw fii tey ci tëjji université bi lii Serigne Touba rek ko mën a am waaye rek ñu ànd ak maa mbakke Mbacke Ahlou Café mi nga xam ne sëñ Modou Fari Khady mooy wajuram sëñ Modou Fari Khady sëñ Massamba Mbacke mooy wajuram sëñ Massamba Mbacke ak sëñ Touba Mamour Anta Sali seen wajur sëñ Massamba Mbacke mii maamam sëñ Touba ko defal lépp ndax sëñ Touba li wajur di defal doomam sëñ Touba ko defal sëñ ma lépp sëriñ di defal taalibeem sëñ Touba ko defal sëriñ Massamba li mag di defal rakkam sëriñ Touba ko defal sëñ Massamba kon maam Issa Mbacke bu ñëwee fii di lay soxna jaar lay maam bu Bousso ndax ba mu siyaare jël sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa dana ko yow soxna maam Issa soxna jaar bu doon ilimam ngay nga ngay naa ibam kon loolu la ko sëñ mun Mountakha wax kon maa isaat mënut a ñàkk nii kon daal li ay tawfiix rek la yàlla nañ ci yàlla defal ndam bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam